ko di laaj yoo xamante ne askan bu cité kër góor gi nag am nañ ko bi ñu yëgee ne lépp liñ fa tegoon ci dispositif sécuritaire nag yëkkati nañ ko. ma laaj naa sama xayti sama collègue yi ñu fiy liggéey laaj naa leen waa mais lan moo xew lu tax gars yi dindi blocus bi ndax pro mu ngi fi ba léegi affaire yooyu noonu après ñoom ñu tontu ma ñu ne ma ah pour l'instant il ne sait pas xamuñu lan moo xew mais bon peut-être que fii ak euh, ay fan bu soobee yàlla dinañ xam lan moo xew. dëgg yàlla euh, xëy mënul génn këram mënul dem mënul dikk te tegoo ko ci benn loo xamante ni ñu mën a yoonal la. affaire bi am na lu ma xaw a téye parce que ñun booy xool bu kii ñëw client ñëwoon. du ma si pour jël mais léegi naa gën a naan barrières yi ñun dañuy sant bu baax. bëri nañ lool ñu ci mel ni Ibrahima Sène nga xamante ne rafetlu nañ bu baax bi la décision waaye njot nañ na rek jàmm ak salaam dina sax ba faw ci dëkk bi. mbette ak soulagement wax dëgg fa yàlla noonu nekkoon na lu métti lool saa yoo ñëwee fii rek gaa yi naan la foo jëm yaa yaa ma gën a xam naan la na nga présenter sa carte professionnelle yooyu noonu xam nga rek. puis en même temps aussi le fait que ngay ñëw rek gis ay autopolice yu dul jeex ay hommes en uniforme xam vraiment c'est doon loo xamante daal. vraiment c'était pas quelque chose de facile à vivre quoi. te it dafay wane ni eh, ni ñu dindee woon troisième mandat bi jàmm am ci réew mi lii tamit bu ñu ko dindee day wane ni li ciy topp rek mooy bàyyi ku bëgg a bokk mën a bokk. ah ñoom dañoo war a waxtaan dañoo war a waxtaan de lépp mu sedd ku bëgg a bokk bokk. lu ëpp ñaari weer kër góor gi nag fattoon lool mu di situation bi nga xamante ne ñi fa dëkkee rawatina ñi fay jaar nekkoon ci ay tolof tolof waaye jamono ji mel na ni loolee mu ngi si ñu ginnaaw.